Yowaana sar ñaar fukk. bés ba jiitu ca ayu bés ga maryaama magdala jóg ca fajar dem ca bàmmeel ba bi mu egsee mu gis ne dindi nañu xeer wañu ko ube woon mu daw dem ca simon piyeer ak ca beneen taalibe ba maanaam ka yeesu bëggoon ne leen jële nañu néewu boroom ba ca bàmmeel ba te xamuñu fa ñu ko yóbbu piyeer ak beneen taalibe ba daw dem ca bàmmeel ba ñoom ñaar ñépp a ngi doon daw waaye beneen taalibe ba raw piyeer jëkku ko ca bàmmeel ba duggul nag dafa sëgg yër seen càngaay la ca suuf noonu simon piyeer mi ko toppoon agsi daldi dugg mu seen càngaay la ca suuf ak kaala ga muuroon boppu yéesu waaye kaale googu àndul ak càngaay la dañu ko laxas teg ko ci wet noonu keneen ka jiitu woon ca bàmmeel ba dugg ci moom itam naka la gis daldi gëm taalibe yi xamaguñu woon mbind mi doon wone ne yéesu dafa war a dekki noonu taalibe yi dëpp ñibbi maryaama nag moom ma nga desoon ca biti ci wetu bàmmeel ba di jooy bi muy jooy mu sëgg yér ci biir seen ñaari malaaka yu sol mbubb yu weex toog ca barab ba ñu dencoon yéesu kenn ka féeteeg bopp bi ka ca des ca tànk ya malaaka ya laaj ko ne jigéen ji looy jooy mu tontu leen ne dañoo jël sama boroom te xawma fu ñu ko yóbbu bi mu waxee loolu mu gestu seen yéesu mu taxaw waaye xamul woon ni moom la yéesu laaj ko ne jigéen ji loo jooy koy seet mu foog ni boroom tool ba la ne ko sëriñ bi su fekkee ne yaa ko yóbbu wax ma foo ko denc ma jëli ko noonu yéesu ne ko maryaama mu wëlbatiku làkk ko ci yawut ne ko rabboni rabboni mooy tekki kilifa gi yeesu ne ko bu ma téyee ndaxte yégaguma ca baay ba waaye demal ni samay mbokk maa ngi yég ci sama baay bii seen baay te sama yàlla di seen yàlla noonu maryaama magdala dem yégali ko taalibe ya ne gis naa boroom bi mu daldi leen nettali li mu ko wax bés booba ca ngoon sa taalibe yaa nga daje woon ca genn kër tëju ca biir ndax ragal yawut ya yeesu ne tëll ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen mu daldi leen woon ay loxoom ak wetam bi ñu gisee boroom bi taalibe ya daldi bég lool yeesu dellu ne leen na jàmm wàcc ci yéen ni ma baay bi yónnee noonu laa leen di yónnee man itam bi mu waxee loolu mu ëf leen ne leen sol naa leen xelu yàlla mu sell mi ñi ngeen di baal seeni bàkkaar baal nañu leen ba noppi ñi ngeen balul baaluñu leen fekk na tomaa mi bokk ci fukki taalibe yi ak ñaar te turam di tekki seex bi nekk foo woon bi yeesu ñëwee yeneen taalibe yi ne ko gis nañu boroom bi waaye mu ne leen su ma gisul fa ñu daajoon ponte ci ay loxoom te defuma ci sama baaraam su ma tegul it sama loxo ci wetam duma ko gëm ba ñu ca tegee ayubés taalibe yeesu ya dajewaat ca biir kër ga tomaa itam a nga fa woon bunt yépp tëju woon nañu waaye yeesu ne tëll ci seen biir ne leen na jàmm wàcc ci yéen noonu mu ne tomaa indil sa baaraam fii te seet sama loxo indil sa loxo teg ko ci sama wet bàyyil di weddi te nga gëm tomaa tontu ko ni sama boroom sama yàlla yéesu ne ko li nga ma gis a tax nga gëm kiy bég mooy ki gëm te gisuma yéesu wone na it ci kanamu taalibe ya yeneen firnde yu ñu nettiwul ci téere bii waaye li ci nekk bind nañu ko ngir ngeen gëm ne yéesu mooy almasi bi doomu yàlla ji te seen ngëm may leen ngeen am ci moom dund